صرف المسيات كيما تقود سمام للرسيات أدل إذا ازداد قلبي أذن بهجتها ووجهت لي هدايا بالمبرات أمسدت طيب نفسي كي أبيل لها billahi min mayli li gayri rida wa min suduudi ya amma sunna aw furida bismi lilahi alladi alquranu qad nazala minhu ibtidaai wa arju indahu nuzula alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa saxbihi zawi nawalil wali ijcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida saddi lisaani na wir janaani sa fi amaani wasidi baraay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. téléspectateur téléspectatrice yi ñuy teewlu di ñu topp ci seen télé Rewmi TV ñoo ngi sant borom bi tabaaraka wa taala li mu yellee ci jëmmam ji te as jaamam lott ci lool di julli tey sëlmal ci sayidul kawnayni wa taqalayni wal fariqayni min urbin wa min ajami sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul di leen nuyu nuyoo bi nga xam ne moo gën a sell ci nuyoo yi te gën cee kawe te gën cee tedd mooy nuyoo bi nga xam ne waa aljanna moom lañuy moom la nuyoo mooy nuyoo bi tàmbalee ci jàmm te jeexee ci barke te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu nuyoo bu tedd bu sell boobu ñoo ngi ciy jiital borom ngëneel Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla yàggal ko yàlla wéral ko day naal di yeggale tey naalaat di yeggalewaat na sax ci naal ak di sottal ñun ñu koy seeree nuyoo boobu la ñuy jox Cheikh Aboubacar Sy Mansour mi ami jataayu xadra malikiya ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax yàlla yàggal ko yàlla wéral ko waaye moom la ñuy jox euh, Cheikh Mahi Niass mi amee jataayu Cheikh Ibrahima Niass bàyyi waaye jataay boobu la ñuy jox Serigne Cheikh Tidiane ñas mi amee jataay maam Abdoulahi ñas waaye nuyoo boobu la ñuy jox maam Thierno Bachir mi nga xam ne moo amee jataay maam Cheikh Omar Fouti nuyoo boobu la ñuy yóbbu Canaba moom la ñuy yóbbu Ndiassane moom la ñuy ci mboolem kër yi diine yépp bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn bàyyiwuñ bàyyiwuñ kenn xanaa di beral am nuyu akub ziyaara it waa Touba saam saamuk sëñ Daara Xuréeja di ñaan bu baax a baax Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy borom pénc ma yàlla yàggal ko yàlla wéral ko incha allahu taala ba mottali mboolem ay naalam ak mboolem njabootu ko sëñ Daara Xuréeja yi yëpp seen émission keppaaruk mag ñi ni niñ ko baaxoo defee dimanche bu jot bu ñu fi teewee fàttaliku mag ñi mag ñooñu nga xam ne li yàlla joxoon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñu jaarale ko ci saxaaba mu jaar ci ñëm war jaar ba agsi ci ñun ñun ginnaaw yàlla buñ ci jotee mag ñooñu ñoo tax seenub dayo waaye seen taxawaay waaye seen liggéey bu rëy boo xam ne liggéeyal nañ ko lislaam loolu yi moom la ñuy waxtaani ci seen émission keppaaru mag ñi waaye nag di ci ziyaara bu baax a baax tey ñaanal borom kër gi alxaaji mbajik di ko fàttaliku ci ñaan di ñaan suñu borom taxawu ko te dolli ko kàttanal ba yéene ji nga xam ne am na ko ci umma islami bi sunu borom mottali ay yéene ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo koy taxawu liggéey bi li ko dalee ci alxaaji mouhamadul moustapha mi nga xam ne mooy DG bi ba ci man mi nga xam ne maa ci a xeebu xam naa noonu ñu ko baaxoo defee dimanche bu jot noonu lañ koy defee waat tey mooy jukki mag ñi waaye fàttaliku seenu dund waaye jàngat seenum njàggale ko ki ñuy fàttali ko tey mooy kenn ci yoonu murit mooy ñaareelu xalifab si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul mooy Seyxil Xaaj Muhammadul Faadal mooy góor gi nga xam ne saa yu weeru rajab duggee xel yépp moom rek lay daj ngir lan moo daan wax ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane lay ma a cëpp xam naa see ki nga xam ne moom lañ ciy àndal mooy suñ bokkum daara sëriñ Moodu Jóob sëriñ Moodu Jóob moom it di ku ñu miin ci kër gi ndax yàgg nañoo ànd ak moom ci émission yu mel nii depuis Rewmi FM ñoo ngi koy ziar baax a baax te di ko ñaanal tey feddali suñu kóllëre ak moom ngir yàgg gi ñu yàgg ànd liggéey ànd ak moom liggéey bi ngir xam-xamam bu sell bu rafet di ko ñaanal yàlla yokk xam-xamam yàlla yokk wéram xam naa dañ koy jox mu nuyoo rek insha allahu taala su ko defee ñu daal di door liggéey bi insha allah sëñ Modou Diop fal tatafaddal mashkura bismillah aouzu billah bismillah inna waliyallahu allazina kitabahu wa tawalla salihin bismillahi wa huwa rahmaan wa huwa rahimun qaadir al amaanu alhamdulillahi ala alkitaabi maa shafii al muzhibi al ajaabi sayidina muhammadin xayril wara man xaadali xidmatahu wa suwara asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu cheikh Mouhamadul Amine Baara Mbàkke ñoo ngi lay delloo nuyoo jërëjëf di la ziar di la baal àq di la baalu àq. jërëjëf di kontaan ci toog gi ñu toog ak yow. Mhm. ngay ku baax di borom xam-xam. Mhm. di kilifa di sëriñ daara di gëstukat di koo xam ne mag ñi rek la ñor. alhamdulilah ak di leen waxtaanee. alhamdulilah ñoo ngi lay nuyu di nuyu borom kër gi di alxaaji ma ñu Jóob ak personnel bépp. Mhm. di ñaanal ñëpp tawfiq ak mucc ak barke di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha. ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gépp képp koo xam ne yaa ngi jug di dox. Mm-hmm. sa lislaam rek tax laa jug yàlla na la mm-hmm. yàlla defal jàmm ci barke suñ Tuubaa néew bi dañ koy gàttal ndax allahumma amin gis ñu baarakallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Modou Fall xam naa dañuy jëkkanteeg waxtu wi rek mm-hmm. ci noonu dañuy ziyaare alxaaji Abou Baraka mi nga xam ne tey moo amee jotaay maam Cheikh Mouhamadul Fadal ci liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la yenu ñu koy ñaanu sama borom tabaraka wa taala oyofal ko ci moom waaye nag di beral ab ziyaara sama wayjur sama sëriñ sama nijaay alxaaji Cheikh Awa Balla mi nga xam ne moom mooy caatum Cheikh Mouhamadul Fadal yow xam nga ni ñu demee wax dëgg yàlla mooy sama lépp <laughs> mooy sama waajur mooy sama niyaay mooy sama lépp maa koy ziyaara bu baax a baax a baax a baax a baax mm-hmm. te di ko ñaanal mm-hmm. te di ko dara jaale it émission bi nga xam ne moom lañ fas yéenee waxtaani waajuram woowu mm-hmm. muy Seyxil Xaaj Mouhamadul Fadal xam naa sëñ Modou Fall dañuy waxtaane Cheikh Mouhamadul Fadal kan mooy Cheikh Mouhamadul Fadal moom mi nga xam ne mhm. nee aw turam alxuraan la mhm. weer wi mu gënee jamono alxuraan la ak dundam a alxuraan la dëkk ba mu dëkk it alxuraan la ah, xam naa insha allahu taala dañ ngay dikkal ci kan mooy Cheikh Mouhamadul Fadal mhm. fan la gënee jamono ak ñen ñooy ay wayjuram ci diggante ñaari wayjur yan la gënee jamono insha allahu taala jërëjëf Cheikh Mouhamadul Lamine Bara ci ci ubbi bu am solo boobu waxtaane Cheikh day lu rafet di lu yel di lu mat sëkk ndax hmm. moom lislaam moo ko tax war a jug hmm. rawatina yoonu murit hmm. Cheikh ne boo ko laajee sax yow loolu tax lan moo si liggéey ci àdduna mu ne bu ma ko laaj alxuraan indi na ko ma arsalnaaka ilaa rahmatan lil alamin nee na mu yërmande moo tax yàlla ay jëfam ak jaxasoo bi mu jaxasoo doomu aadama yërmandeem firndeel na ko Cheikh Mamadou Fadal nag euh, yow mën naa waxtaane lool ndax ay waajuram yu tedd yu màgg yu sell la mhm. yu baax yi ko meññ mhm. mën nañoo njëkkee mhm. ci waajuram wu góor bi nga xam ne sëriñ Bay Jaxate nee na lu waay mën a am lu rëy rëyit sëfu ma ndegam amoo kee ba am nga xeeb naa ko wallaay ndeysaan ku waay mën a gëm gëm bamba moo gën a gën a wóor man ma chanri ba muy tagg sëñ Tuubaa dana ko fa huwa alqadimu alladi diini wa diini fa huwa alqadimu alladi mushabba kaana ala kaana ala xaqin bila zanbin wala diini wala diini ndeysaan nee na jox mooy koo xam ne penkook sowwu ndeyjoor ak càmmoñ bët gànnaar ak bët saalum ku mel ne moom amul ci kaw suuf ganiyyun ani taarif jeexu tàkk daan daan ne nag mooy ko xam ne <coughs> maanaam nit nit nit mën naa baax lool. Mm-hmm. waaye bi mu nekkee ndaw. Mm-hmm. mën naa di fi fi ndaw. Mm-hmm. borom ma sax ne sëñ Tuubaa nañ ko génne ci loo ba bokk ci. ndeysaan nee na moom ni mu nekkee mag. Mm. ak ndawam noonu ak ndawam moo gën a baax sax ak magam. almashari mës a jaar mukk ci a bari a moo gën a bari. a waaye daan way arab. Mm-hmm. bi ñu way sëñ Touba ci ci ci ci ci mission sëñ Touba. Mm-hmm. maanaam na na na na na maanaam neen sëñ Touba mm-hmm. ñetti ñetti ñaari mbir donc ko la amoon la doon jëf ci àdduna ñaari mm. mbir. Mm-hmm. Euh, dane da da da sëñ Jaxate dane mm. sëñ Tuubaa mm. mësta bokkaale boromam. ndeysaan dund dund ba wàcc. mësta bokkaale boromam. Mm-hmm. waaye dundam gépp Mm-hmm. da koo liggéeyal. Mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. sëñ bay jaxate. kon kooku mooy ñoo ñooy ay wayjuram. kooku mooy sa yax mooy Bamba Xaadimu Rasuul góor. wayjuram mu jigéen mooy soxna Xawa Buso. soxna Xawa Buso soxna Xawa Buso nag. Serigne Baara Serigne Fallu mi ñuy waxtaane. Chérif la dafa bokk ci surafaaw yi. ndeysaan. so soxna Xawa Buso mi ko jur dinaa indi maamam yëpp ba ci yonent bi sallallahu alayhi salaam. may xam ne Chérif pire la. soxna Xawa Buso mooy doomi Serigne Ahmadou Buso. Ahmadou Buso di doomi sëñ di doomi Ahmadou Matabara. Mm-hmm. Ahmadou Matabara doomi Ahmad. Ahmad di doomi Aliyun Aliyun di doomi Ousmane Ousmane di doomi Ibrahima Ibrahima di doomi Ismaila Ismaila di doomi Zakariya Zakariya di doomi Ismaila Ismaila di doomi Souleymane Souleymane di doomi Xasan Xasan di doomi Ibrahim Ibrahim di doomi Abdullah Abdullah di doomi Haruna Haruna di doomi Muhammad Muhammad di doomi Abdul Fatah Abdul Fatah di doomi Muhammad Muhammad di doomi Aliyun Aliyun di doomi Aboubacar Aboubacar di doomi Aliyun Ali di doomi Muhammad Muhammad di doomi Aliyun Ali di doomi Ibnul di doomi Xasan Xasan di doomi Cheikh Abdul Qadir Jilaani mi ñëpp xam sultaanul awliya Cheikh Abdul Qadir Jilaani di doomi Moussa Moussa di doomi Yaxya Yaxya di doomi Yaxya Zahidin Yaxya Zahidin di doomi Daawud Daawud di doomi Moussa Aljawaani Moussa Aljawaani di doomi Abdullahi Almahdi Abdullahi Mahdi di doomi Seyduna Xasan Seydina Hasan di doomi Seydatuna Fatima bintu Rasulullah sallallahu alayhi baarakallah sëñ Modou Fall. kon ñooy la. Mhm. émission bi weesu bi may waxtaani soxna jaar mhm. silsile bi nii nga ko indee. Mhm. nii laa ko indee. jërëjëf damaa wax ne Sénégal dañoo mën a weddi. <laughs> Sénégal dañoo mën a weddi. dëgg dëgg yow de boo toogee sa plateau rek ne ah. soxna Hawa Bousso. sëtu Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam la. ñu ne waa sëñ bi daal ñii daal ñoo neex rek toog fi ne sëtub yonent bi mm, yombal ko fu mu ko fu mu ko sëtoo mm-hmm. moo tax silsila bii nii mm. ko sëñ Mbàkke bu soo indee mu doon 33 mm-hmm. maam fanweeri maam ak ak ñett mm-hmm. noonu silsile bi noonu laa ko liiree. muy lu am solo am solo am solo. sëñ Fallou kon. Mhm. Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul ganiyyun ani taarif mooy way juróom bu góor. Mhm. way juróom bu jigéen soxna Xawa Buso la. soxna Xawa Buso doomi Serigne Buso bi la. Mhm. sëñ Buso bi doomi ma Buso Awa Mbaay la. noonu la silsilaam demee ba ci Sayyidatuna Fatima. Euh, alayha salaam bintu Zawjatul Batul. Zawjatul Batul mi ko dafa dafa sedd mi ko wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. ban année la gane àdduna. Serigne Fallou mi gane àdduna. ak fan. ci ci dëkk bu ñuy wax Daaru Salaam. Daaru Salaam. dëkk bi sëñ Tuubaa sanc mhm. may ko maam may ko maam Cheikh Anta. Mhm. ak juróom-ñeent fukki dong ak juróom-ñeent. fukki mhm. Tuubaa. mi ngi génn bis bu àjjuma mi ngi génn àdduna bis bu àjjuma. ay ñaar fukki fan. ak juróom-ñaar. ci weeru rajab. 1306. 1306. waaw. tombeeg vendredi. 29 mars. 1888. 1888. am na ñu ne 89. ndeysaan. waaye daal 88 moom lañ lañ. moo gën a lëng moom lañ jàpp moo gën a bëri. 1888 la gane àdduna. Mhm. ca Daaru Salaam. ca Daaru Salaam. ca dëkk bi nga xam ne Sëñ Tuubaa bëggoon na ko lool. baarakallah fonk ko lool. baarakallah bisu àjjuma la gane àdduna. bisu àjjuma la gane àdduna. ci mhm. diggante ñaari waajur yooyu muy Cheikh Ahmad Bamba. Mhm. maam Hawa Bousso ci Daaru Salaam. le 29 mars. 1888 yam ak muy 306. waaw ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab ci hijri. baarakallah dafa leer dafa leer lool macha allah sëñ Modou Fall kon xam nañ ki ñuy bëgg a waxtaane muy Cheikh Cheikh Alhaaji Mouhamadul Fadal mhm. dëkk bi nga xam ne moom la gane àdduna yi mooy dëkk bi Sëñ Tuubaa njëkk a sancal boppam mhm. mooy Sëñ Tuubaa dëkk bi njëkk a moomal boppam mhm. muy Daaru Salaam te da xam ne kon Sëñ Fallu ba mu fay gane àdduna fekk na Sëñ Tuubaa may na ci la ko mayoon maam mu sancee Tuubaa baarakallah ci Sëñ Mouhamadul Fadal fan la jaar ci wàllu jàng ci wàllum jàng Sëriñ Baara ñi ëpp ñi ëpp xam-xam. ci mhm. Sénégal. Mhm. gën fee jàng. Mhm. bokk ci ñi gën a jàng. bokk ñi ëpp xam-xam ñoo jàngal sëñ Fallou. barakallah ndax sëriñ Fallou ki ko dalal alxuraan moom mooy sëñ Touba moo ko dalal. waaye bi mu ko dalalee ba noppi nag. da koo jox ñi nga xam ne dafa da leen a wóolu ci lépp. ci wóolu lépp ndax sëñ Touba du doomam du ko jox n'importe qui. dëgg la mën nga koo jege ci mbokk. dëgg nga koo jege ci taalibe. dëgg yow bi yow mi muy jox doomam. da am xam-xam jàng. Mhm. dañu ragal yàlla mhm. ragal yàlla. Mhm. jub maandu. jub maandu wallaay ndeysaan. mu jox ko. ñi jàngal sëñ Fallou bokk na ci. borom daarul moxti. borom daarul moxti. borom daarul moxti jàngal na sëriñ Fallou. te borom daarul moxti. dafa bokkoon ci ñi nga xam ne. ci jamonoom. xam-xam moom amoon na ko ndax borom daarul dund na juróom-ñeent fukki at juróom-ñett fukki at. yu teg ñeenti weer. ñaari yoon rek la mas a la la la a tiim. tiim waaw ndeysaan. daana wax ne sama jumaa ji sama jàkk ji képp bu ci julli. te pourtant tiim dagan na. Hmm. waaye day wane ne daf day hmm. fonk gi mu fonk charia hmm. ak fonk julli ak fonk yàlla tax waaye ku ne xam ne tiim dagan na dëgg la waaye day bañ woyefal jàpp moo tax mu ne ku jàppul bu dugg sama jàkk ndeysaan borom daaru jàngal ci tënk rek jàngal na jàngal na Serigne Fallou ba tey ki ko jàngal bokk na ci Serigne Dame Abdourahmane Lo Serigne Dame Abdourahmane Sëñ Moussa Ka nee na borom daaru borom daam yi mu koy way ku judd ci Mbàkke moo ko xamal boromam ndeysaan borom daa borom ndaam mi nga xam ne. 1943 la wàcc liggéey. bi mu wàccee liggéey. ndaam Abdourahmane ñetti doomi Sëriñ Tuubaa ñoo ko taxawu. Mhm. Cheikh Mouhamadul Moustapha ko taxawu. Mhm. Mhm. <clears throat> bi mu wàccee liggéey ñoo koy taxawu. nee naa loolu mosuma gis ko ko am moom rek laa ko xamee ci ko ko am. Cheikh Mouhamadul Moustapha moo téye bopp bi bi ñu koy dugal ci biir bàmmeel. Cheikh Mouhamadul Fadal mii di borom bis bi ñuy waxtaanee. moo téye tànk yi. sëñ Basiru moo ko nangu la ilaha illallah kon lii moom ah, faat na moom nit mën naa <laughs> may faat na moom fi mu ne waaw kenn mënatu koo am waaw jàngal na ko uh-huh. waaye bokk na it ñi ko jàngal ba léegi sama am ju baax ji mm-hmm. di sëriñ maam Mor Jaara borom saam. maam borom saam nga xam ne moom xam-xamam moom. Mhm. ak tabeem ak ragal yàllaam. Mhm. ak mën a julleem. Mhm. ak fonk yàlla. moom sëriñ Baara ñu ko wax. sëriñ Baara ibnu Xaadim Rasul bi mu koy tagg. mu wàccee liggéey. dana yabitu yu salli. su ma yusbihu saa iman. wa maa juduhu illaa ka amtaari waabili ndeysaan daneen borom saam day yëndoo koor. te ca jamono jooja. fanaanee julli téeméer rakka la naafila guddi gu jot. waaye sëriñ Baara nee na. koor gi julli gi. Hmm. am na loo xam si dama cee yéem ñu ne ko lu la ci yéem. Hmm. mooy tabam tab gi mu tabee. moo raw illaa ka am taari waa ni mu sotti ko ba hmm. ñi nga xam ne ku baax ak ku bon ñëpp ci sukkandiku. dëgg la nee na borom saa ak tabam. amu ci morom amu ci morom. dëgg la jàngal na Cheikh Mamadou Fadal. kon ñett ñii rek. doy na sëkk. boo nee borom daaru bi nga xam ne. wax naa ko sànq ci ci ci bi may ubbi. ndax borom daaru xam-xamam. Ah. dafa am bis ci laay tëjee rek. ndax temps Sëriñ Tuubaa nekk euh, fële ca ca ca ca Mauritanie. Mhm. naar yi am mhm. masala ñaari masala yu leen jaaxal lool. Mhm. masala bi ci njëkk mooy. dafa am koo xam ne. waajuram dafa wàcc liggéey. yor na awra góor ak awra jigéen. ñu war ñu war a miiras waajuram bu góor. xamuñu ban cër lañ koy jox ndax yor na ñaari awra yëpp. kenn ki. am xar la. moo xam ne bi mu nekkee mbote la ndeyam faatu. ab xaja ko nàmpal ba dëgër. naar yi nag li ñuy bari xam-xam. xam-xam li ñuy foor foor li ñuy gëstu gëstu. Hmm. ñaari jaaxal na leen. Hmm. ñu ne kenn képp. Hmm. kese rek lañ xam ne mën nañoo dimbali ci lii. muy Serigne Touba Xaadimu Rasuul. ñu def déléga mooy laaj ba jàllar bi ko. waaw ñëw ñu def <laughs> ñu def daan ñëw Soudan jeex a tàkk <laughs> uh-huh. ñu def délégation ñëw ci sëñ Touba wax ko. sëñ Touba ne leen awma jotu tontu ay laaj. lu nekk ci man def naa ko ci Thierno dem nañ ci Thierno. ndeysaan su ngeen àggee dinañ leen wax. masala mii lan mooy tontu bi. Mm-hmm. ñaar ñu ci borom daaru. Mm-hmm. suñ borom daaru ne day loolu de lu yomba tontu la. Mm-hmm. daal ne kii nga xam ne dafa am ñaari awra góor ak jigéen. bàyyam faatu ngeen bëgg ko ngeen bëgg a miiraas jox ko wàllam. jërëjëf soo da ngeen koy tuurloo ndox. aaro bu mu tuuree ndox ngeen xam ne loolu la. la ilaha xaj bi nga xam ne nag dafa nàmpal am xar ba xar mi dëgër tabaski jooju ngeen ko tabaskee. aslu rek moo am moo am solo mu cosaan. ndax xar mi baayam xar la yaayam xar la maamam xar la xaj bi nàmpal ko téew ko nekk xar maanaam baa ni maam Thierno na leen gàgganti gàgganti man baam ba bis pénc ba laay lijjanti <laughs> man baam maam Thierno gàgganti naar ya mm. tasaare maanaa ya te yërul mool ya baarakallah <laughs> baarakallah sëñ Modou Fall sëñ Fall buñ ne borom xam-xam la dañ naan ko ko jàngal ñu ne mm. ay borom boroomi xam-xam ñi rawoon ci réew mi doy na sëkk nga ne borom saama ko jàngal mm-hmm. sëñ Moussa Ka nee na mm-hmm. ca yooyu at mm-hmm. alxaaji seexu buuso laxase saalum ñëw ba wol di duusu ndeysaan ànd ak sëriñ Mbàkke ñu jaari mhm. Mbàkke macha allah ngir sàkku alxuraan ju ànd ak barke mhm. asayx mamar jaara moo leen tuural mhm. boobee ku fii kàng moo lay seetal yaa tak fir na jaay noonu loolu loolu rek leer na maanaam koo xam ne ci jamono jooja ku fii kàng rek moom moo lay seetal ba xam sa tàng dëgg la de dëgg la de kooku moo jàng ba ci sëñ Tuubaa bi moo koy alxuraan borom saa moo ko moo ko kii ndax boo demee ci téerib sëñ moom la mun jëm na waaw waaw min xasbi ubbil xadim min xasbi ubbil xadim baarakallah indi na ko ci am na solo am na solo sëñ Modou Fall mhm. waaye sëñ Daam Abdourahmane Lo sëñ mhm. Daama jàngal Cheikh mhm. Modou Fadal lu mu wax mu mokkal kenn la ci réew mi moom Baye Omar Kane Balaye Sa mu baax yàlla Baye Omar Kane Balaye Sa yàlla dëgëral ko mooy way wayoon sëñ Fall taalifkat mu ne sëñ daama jàngal Cheikh Modou Fadal lu mu wax mu mokkal kenn la ci réew mi loolu mm-hmm. loolu ay firnde la yu leer yoo xam ne mm-hmm. sëñ Fallu buñ ne borom xam-xam la mm-hmm. dañ naan ñu ko ku ko jàngal ñu ne ñi raw ci réew mi ñoo ko jàngal dëgg la mooy jarbaatu alxaaji Mbàkke Buso jarbaatu alxaaji Mbàkke Buso doomi Cheikh Ahmad Bamba mhm. ku borom saam jàngal borom daaru jàngal la mhm. kooku moom boroom xam-xam rek la mën a doon mooy li wolof yi di lépp mhm. naan lu juddoo mu tàgg su naawul jaaxali bokkam <laughs> su juddoo cim tàgg moom bu naawul ay day jaaxal ay bokkam kon xam nañ ne si Amadou Fadal borom xam-xam la waaw lan la réalisé ci wàllu xam-xam ndax bind na waaw wala ndax soon na ay daara ngir xam-xam bi tasaaroo sos na ay daara sos na ay ay daara sos na ay dëkk dëkk yëpp pour yar nit. Mhm. jàngal nit ak defar nit. Mhm. moo taxul mu sos ko. Mhm, mën a jiitu dëkk boo xam ne rek. ñu bari dañ koy fàtte waaye dëkk ba mu solo la sëñ Fallu ko fonkoon muy Touba Mirina. Touba Mirina xam ne ah, sëriñ Basiir moom sëñ Fallu ma fa nekk. di dëkk bu am solo. Ah. sëñ Fallu sos ko. indi fa sëñ Basiiru. man ci kàddu sëñ Basiiru. mooy dëkk bi ba ko fi sëñ Fallu di indi. dara amu fi. ndeysaan nee na nee na nee na booba ñu bari doon wax naan mm-hmm. ah man de dëkk bi dëkk bi dëkk bi sëñ Fallou indi doomam ji dama yaakaar ne dañoo yaakaar ne dafa bañ doomam ji ndeysaan nee na sëñ Fallou ne leen fa ma ko yóbbu mm-hmm. bis ngi ñëw. Mm-hmm. lu waay bëgg da nga ko da lu waay bëgg lu waay bëgg. ci dëkk ci dëkk boobu ci dëkk boobu ngay dem da koy wutee ji. muy Touba Mérina ñoo ngi ziar baax sëñ Fallu sëñ Basiru borom Touba Mbir di ku baax. tubaarkàlla bari xam-xam tubaarkàlla yàlla yàlla yàggal ko. amiin amiin amiin. waaye ko sanc mm-hmm. waaye bokk na ca. dëkk bii nga xam ne siiw na lool. Mhm. di Touba Ndindi Ndindi nga xam ne moom siiw na bokk dëkk yi gën a siiw. ah ndeysaan sëñ loo ko sos. daa lim sës ci Touba. lim sës ci Touba nga xam ne. Mhm. fi mu toll nii. moom ñëpp xam nañ ne dafa sës ci Touba. waaye nit ñi dëkku boppam la. dë dëkku boppam la waaw boo da ngay gis tab. dëgg day Touba waaye nag Touba moo bari barke. Mhm. bari xéewal ba tax. Mhm. dëkk dëkk bu mu nend la da koy ëmbaale. dëgg la waaye suñ fa loo sanc dëkku boppam la. dëgg la tey dara sanc ko dara tax mu sanc ko lu defar doomu aadama. yar. gor. defar ay bay ay tool. jàng ak jàngale. wallaay ndeysaan. waaw du noflaay du dara ndax bu doon noflaay mën naa nekk Touba wala Njaaréem. ndeysaan sëñ Modou Fall. dogguma la damaa mës a dégg mhm. maa ngi koy ziar bu a a baax a baax. Mhm. damaa a dégg muy waxtaan ak ak kilifa waxoon wax ju am solo. Mhm. maanaam euh, la ca ëpp solo maa wax ji rek am solo moom laay ah. indi. mooy dañuy dafa tàggu sëñ Fall. waaw ne ko sëñ Modou bu sa jëng. daf maa bëgg a yóbbu Touba Saam Saam Yabal. Saam Yabal. mu ne ko dee fi falan mhm. mu ne ko daal di def ma faa bëgg a jox ay tool mhm. ngir ma dem liggéeyi foofa mhm. nee na suñ fàllu ni tekk ba mu yàgg ne ko asgor su bëggee gore day gori day gori maanaam xekk ma boobu moo ko ci dégg naa baax mu ne ko suñ fàllu ne ko asgor su bëggee gore day gor day gor yi dëgg mm-hmm. la kon suñ fàllu mm-hmm. li muy jàngale moom moo ci jiitu moo mm-hmm. ci jiitu dëgg la de muy jaamu yàlla ak moo ci jiitu ndax boo xoolee diir bi mu dund ah. lim fi sanc ci ay dëkk taa njabootam di ko dundal ba léegi ah, dëgg la de day tegtale ne moom suñ fàllu naka yëg naka jekk jaamu yàlla ak liggéey rek ci la masal dëgg la de dëgg la de dëgg la de loolu loolu firnde ji rek ba ba fàllu di sanc lépp lu fa am ko fa yóbbu ndeysaan dafa am. Mhm. ci ci ci xam ne bi mu koy sañ ci dara amu fa. dara amu fa. dëgg la moo ko gor. Mhm. moo defar ay néegi sàkket. booba mhm. tabax amagul. booba amul ndeysaan moo wut ay ay ay ay ay baykat. lépp daal daara jàng lépp moo ko taxaw. ba dëkk boo ci dem da nga yaakaar ne. dëkk bi am na at yu bëree bëree bëree. bànqee wut dara ndeysaan te ak jamonoom. ku bi wàcc liggéey soixante-huit yàggul. waaye entre trente. 35 mm-hmm. ba 40 mm-hmm. mm-hmm. ba 45. ba 50. ba 55 Sëñ Fall di sañ ci ay dëkk. ndeysaan Sëñ Fall dem ba nekk xalifa Sëñ Tuubaa di sañ ci ay dëkk. wallaay ndeysaan. te xam ne xam-xam la woon. borom a mag la woon. la ni a ay wolof yu mën a jëriñ. noonu it la ko yàlla suturaale woon mu mën a bind arab. waaw li lay wane ne dafa mm. xam nga sëñ Fall bi muy tàgg sëñ Tuubaa. Mm. ci ci bayru njëkk wi ki nga xam ne kii ku dégg arab la. kii ko mën a waay la. Mm-hmm. xam nga sëñ Tuubaa dana sëñ Fall dana sëñ Tuubaa. Mm-hmm. yaa ayyuha shaykh. Mm-hmm. annafis al murtaja annafis al murtaja. yaa fatihan ma qablu kaana murtaja. sëñ Ba dama taxaw foofu yaa ayyuha shaykh. mooy yow sama sëriñ yow sëriñ bi. ndeysaan. annafis bu ko arab waxee annafis mooy lu riche. Uh-huh. lu riche lool. Uh-huh, uh-huh. al murtaja. al murtaja. al ñaari maanaa day firi ñaar. day firi. lu tëju. waaye day firi ku ñu yaakaar. wallaay ndeysaan. léegi nag dana ko yow yow sëriñ bi nga xam ne. Mhm. yaay ku riche ki. Mhm. yaay ki nga xam ne. Mhm. yaay ku lu yaakaar ki. waaye nag fële ci ci ci weneen maanaa bi mu ne ko yaay ki nga xam ne. yaa faatihan maa qablu kaana murtajaa yaay yaay kiy tijji. la tëju woon. wallaay ndeysaan maa gi day firi. lu tëju maam daa indi ñaari baat. bu am yoo xam ne ñoo bokk nañ leen bindee. waaw waaye am na ñaari maana ñaari maana yu wute de waaw maal abraari xiina asiru asiru. wa zanna al ida xiina hunaka asiru. benn bokk ci ñetti asiru nga ñoo xam ne benn bokk ci moroom maana macha allah. léegi nag mu ne ko yaa ayyuha shaykh uh-huh. an nafis al murtaja yaa fatihan maa kaana qablu murtaja uh-huh. waaye naa beextu. Uh-huh. foofu tamit am lu sew lu ci gaa di fàtte. ba gars dañ naan. sëñ Fallou dane jaay naa sama njureel. Mhm. doom gi ma nekk ci doom gi ma nekk ni ma nekk doomu sëñ Tuubaa. Mhm. muy lu wér werante amu ci. jaay naa ko. waaye mhm. ah, sëñ Fallou waxul loolu. sëñ Fallou dane dafa dafa def dafa def li arab di waxee di tuddee tasxiir. tasxiir mooy ti mooy nga wàññi mbir diminutif. waaw xam nga xam nga bunu wëtti ya. bunu wëtti ya waaw waaw mooy fii as ndoom. waxul waxul waxul doom ji ma nekk sëñ Tuubaa de. moo dafa sew. dane yow dane yow sëñ Tuubaa. man sëñ Fallu sa as ndoom laa. as wallaay ndeysaan muru ma la sax doom. wallaay matuma la sax doom. waaw as bu nu wati ya. bu nu wati mooy as. mooy as tuuti laa. Mm-hmm. waaw mooy man daal naa loolu ci tuuti naa daal ci ci nekk sa doom. Mm-hmm. waaye nag doom gi mu jur gi mu jur neex na. wallaay ndeysaan wér na. Mhm. am na lu ma ko dàqal. Mhm. mooy ak taalibe. mooy ma doon sab taalibe. beextu bu nu wëtiya bil iraada lakum li kay oxza bi xarqi aada. Mhm. waaye nag min baadi ma man ni. bi ba ma la joxee ba ma la jaayee ku jaay kay sama njëg yaa ko moom. njëg li ma moom. man sëñ Fall defaat naa ko addiya. joxaat naa la ko addiya. te nag al man na foofu dafa am lu ci bi xayri man ni. bi xayri man ni. ma anfaqu mannan wala azan waaw mm-hmm. xam nga mën na mooy nga sëñ baara ma am téléphone may la ko mm-hmm. par gén di xul su ma génnee nag ku ne danaa ah, ko saa yi may ko bi xëyri man uh-huh. ma ci moom ba léegi mm-hmm. ci meneen meneen meneen mbind mu Fallu wax sëñ Fallu nee bi may sëñ Tuubaa ba léegi. Mm. ci nga xam ne kii ku dégg arab la. Mm-hmm. yaaraa iman. Mm. misla cheikhi mahlan mahlan baat baat bu ruqe la. yaaraa iman. waaw yaaraa iman yow miy wëreelu. <laughs> yow miy tambaambal misla cheikhi mahlan yow miy tourné. yow miy def ay ndaje. fu ne nga dugg fa looy wër ku mel ne sama waajur sëñ Tuubaa. Mm-hmm. sëñ Ba sëñ Fall nee na mahlan dalal. tey defal ndànk defal ndànk. ndànkalal kaw suuf ku mel ni suñ tubaab amul doo ko gis doo ko gis daana leen képp nu war nag muy njukkal njukkal yàlla mm-hmm. sant yàlla ci yàlla mi nu ay ku mel ni suñ tubaab mm-hmm. tabaarakallahu man fil anami rawsan jalaahu mm-hmm. lam ca teg ci nga xamee ku bëgg suñ tubaab la uh-huh. ku dégg arab la uh-huh. suñ fallu nee na koor farata la weerante amu ci moom ak julli ak aj màkk loolu farata la waaye man sëñ Fallu man tuur sama rango ngir bëgg sëñ Tuubaa farata laa ko def wallaay ndeysaan sab'u dumin sab'u dumin li hubbil qayyim fardan arahu wallaay ndeysaan nee waxtaani sëñ Tuubaa ba sax xol tooy jooy nee sëñ Fallu man loolu farata ci man xuma nag ngeen waaye man sëñ Fallu man farata ci man laa ilaha illallah nga xam ne li ëpp ci ay wayam moom sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la moom la koy jóor wallaay ndeysaan moom la koy jóor am na xasida goo xam ne la ci doon jo li gayrika laa nashku ila hal wara amra mooy mooy bi jëm illana illa ilayka iltijaat ci nga xamee ni ko am tawxiid la wallaay ndeysaan ndax ñaanul yonent bi mhm. ñaanul sëñ Touba waaye suñu borom la ñaan ci yàlla la jiw ki nga xam ne li muy bëgg bëgg sëñ Touba li muy mhm. nekk nekk murit mhm. jullit xaqan la ilaha illallah murit saadix la kuy dund charia la ku am tawxid la ku ragal yàlla la wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan nga xam da nga ciy déggee ne soo déggee ku taxaw fee naan murit yi dañuy bokkaale daa mi dub sëñ Fall la ndax li xëyri ka laa nashku ilahal wara yaakaar naa kuy bokkaale yàlla doo ko ilahal wara ku dul yow amra amra te wama Hmm. aw ma. dëgg la wa maa illa naa. am aw ma illaa ilayka. dëgg la de lu nekk ci yàlla aw ma lu dul yow. <laughs> wa maa illa naa illaa ilayka. dëgg la dëgg la de. iltijaa dëhra la ila ilayka iltijaa dëhra jiiru jamono mhm. lépp loolu maanaam daal yaay sama wéeruwaay yaay sama wéeruwaay <laughs> yaay sama wéeruwaay kon loolu muy lu am solo am solo mhm. waaye it daa mel ne daana way it ci mhm. comme léeg-léeg lu mel ne benn circonstance am mooy maa ngi dégg ñu ciy nettali. naar bi nga xam ne moo leen fekkoon ca penc ma doon leen laaj baxa yi. waaw xeet yu mel noonu léeg-léeg daana way ay way yu xorom mu ñi ngi ah. may nettali sax xaritam bu ñuy wax sëñ Mor Roqee Bousso. waaw sëñ Mor Roqee Bousso. maa ngi koy ziar bu baax a baax di di ñoo ngi ci ziar sëriñ Ousseynou Mbacke. sëñ Ousseynou Mbacke sëtam ab sëtam la ndeysaan maa ngi koy bu baax a a baax sama sama xarit sama walaay ku baax ndeysaan macha allah euh, am na jotaay bu mu toogoon ak sëñ Mor Roqee uh-huh. dafa gane si sëñ Mor Roqee waxtu xéewalu jot ñu xéewalu ba noppi uh-huh. mu daal di jékki-jékki ne sëñ Mor Roqee laa budda bi tambuli ba'da sharabina. ndeysaan waaw mënut a ñàkk. sëñ Mor Roqee ni tekk ba mu yàgg mu ne ko faati bi xusmaana qabla faraaxina. <laughs> macha allah gis nga gis nga. dëgg dëggal dëggal dëgg go go go yooyu ñoom ñaar <laughs> maanaam loolu mooy xam-xam. mooy xam-xam dëgg mooy ku mën a jori. waaw kay mooy koo xam ne day toog ba mu yàgg benn circonstance jot rek. Mhm. mu génne ci dara. loo xam ne boo ko peesee misaan yi nga mën a teg misaanul arudi yi nga mën a teg mm-hmm. yépp mm-hmm. benn du ci dëng dëgg la mu ne ko laa budda bi tambour yi baax de charabina mm-hmm. mooy ñun mënuñoo ñàkk gura dëgg la guro guro tambour guro gi waaw ginnaaw bu ñu xéewaloo ba naan ndox ba pare waaw sëñ Ousmane ne ko sëñ Mor Roqee ne ko faati bii xosmaana fa atib bii xosmaana faati a Ousmane qabla faraqina hmm. maanaam sëñ Ousmane bu sa rakkam mi ngi koy indi bala ñoo tàqali ko bala ñoo ñaanali ko bala ñoo ñaanalante sëñ Ousmane bu sa <laughs> garaaw na lool mag ñi ni ñu doon jekkoo arab dëgg la maanaam boo déggee léeg-léeg maanaam keroog maa ngi koy wax ci benn émission hmm. lu tax ñu ne xale yi hmm. faaw ñu am xam-xam faw ñuy jëfandikoo nouvelle technologie maanaam faw ñu yor machine xale bu ci am sax certificat day hmm. nax ay parents ne ko wutal ma téléphone pour ma mën a def samay exercice hmm. mais mag ñi hmm. luxa arab yi mooy langue bi gën a jafe dëgg la de damay wax ne français man ngaa dugg mën ngaa dëkk ci kër dégg ñu yàgg koo wax nga dem ba man koo wax séeréer noonu. dëgg la soo ninke maninke noonu. Mhm. waaye luqa arabiya mhm. dëkk ci kër guñ ko wax taxul nga wax ko. ndax dafa sew. da nga koy jàng. arab dafa nekk langue bu sew a sew du ay pexe ak ay mbir. te pourtant. Mhm. te pourtant mag ñi suñu mag ñi. ñoom des fois ay journal lañ daan am yu jugee Murtani. wala ku jugee Màkka li leen ay journal. dëgg la bu dul loolu da amuñu woon rajo. wala bokk ñi mujj sax su a âge bi mujj mhm. ñoom londoom lañ daan diglu boo bu euh, bu arab bi dëgg la daan ci defar seeni arab ak ñi jiitu nga xam ne ñoom amuñu woon journal bu ñuy diglu amuñu woon journal bu ñuy liir daawuñu dégg ko arab mais mhm. seenum njàng seenum njàng seenum mhm. nangoo insister ci njàng bi ak coono bi def seeni exercice ni mu waree te daawuñu jëfandikoo nouvelle technologie kon dama ci ne. Mhm. dañoo dañoo dëgg la waaw loolu dëgg la moom. vraiment dañoo jàngatut da ngay xool téere Alhaji Malick bi bi mu tuddee Xilaasu Zahab rek. Xila Xilaas waaw xëy na arab soo da nga yaakaar ne ko bind. da ngay jàpp ne kii. ca naar ya la jàngee da ngay xool damay xool jamono jooja. xam-xam météo ci ay jamono macha allah. nga xool arab yi mu ciy indi. Mhm. tàmbale ko ci yaaqa isal bahri lil asdaaf biha duratun ala min al baarakallah arab yi ñoral na ko gëstu lu arab yi ñu yor dafa yéeme dafa dafa loolu mooy xam-xamu sëñ Fallou ak lim mhm. réalisé ci xam-xam mhm. Mhm. xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek dañuy dikk ci relation bi mu amoon ak njaboot sëñ ci diggam ak jumaa ji dëgg la su ko defee dooram yëkkati jërëjëf Cheikh Mouhamadou Lamine Bara sëñ Fallou dafa amoon relation bu rafet ndax sëñ Fallou ko rafetoon jikko la sëñ Fallou dafa rafetoon jikko lool baax lool mën a maye lool ndax sëñ Fallou nit daa ñëw di ko nax mu mu mu mu nangul ko nax ya fajal ko aajoom du ko toroxal ndeysaan mm-hmm. am na bis mu toog mm-hmm. di jaay am mm-hmm. mu toog ak taalib yëpp di waxtaan am ku ñëw di jaay ay reen ñëw tiim di jaay ay wareen ay wareen kenn jëndul sëñ Fallu daan ne daan ne ana ki jaay reen yi ñu ñu ne ko mu ngi nii ñu mu ne woo leen ko ma ñëw ñu woo ko mu ñëw sëñ Fallu jënd reen gi teg ko ci wetam di waxtaan ak mag ñi di waxtaan di waxtaan ba ba ba waxtu ñaan jot sëñ Fallu ne waaye damay jaay ay reen waay ku bëgg hmm. reen ñëwal ñëwal jënd reen ya fa nekkul gaa yi jënd reen ya ba nar a jënd suuf suuf sa suuf sa réew ñëpp a koy jënd <laughs> <laughs> sëñ Fallu ne ne ne leen waaye waaye loolu du yaakaar rek tax ma teg ma teg reen yi eh, ngeen ko jënd ñu ne ko waaw Mbàkke mu ne ki doon jaay yaakaar lam ci yéen rek bàyyi leen tas yaakaar jullit du tas yaakaar wallaay ndeysaan nga xam ne moom dafa bëri yërmande xoolal njàngale moom njàngale moom njàngale mu foor a foor a foor moom xam ne da nga romb nit muy jaay ci mbedd mi waaw li muy jaay yow soxla woo ko woo ko waaye li muy daj ci pour nga ah, jënd ko nga dimbalee ko jënd ko jënd ko ndax mu wàcc ndax naaj wi wàcc la ñuy jaay ay orange ak gerte loolu ñëpp dars bu am solo am solo la am solo am solo mhm. digganteem ak euh, doomi sëñ Tuubaa yi nañ ci njëkkee mhm. Cheikh Mouhamadul Moustapha mhm. da ko fonkoon lool mësta jaar ci turam ndeysaan sama mag ju baax ji rek lay wax ndeysaan mësta wax mësta wax si mënu sama mag ju baax ji rek bëggoon ko lool fonk ko lool. Mhm. ndax bi sëñ Modou Moustapha bi sëñ Cheikh Mbacke génne euh, Fatma génne àdduna. 1912. Mhm. Mhm. biñ tudd bi. sëñ Modou Moustapha da koo leewu. jox ko sëñ Fallou. da ko sa dooma yaa koy tudd. ndeysaan sëñ Fallou ne ko kat man danga ma cee doy. wóolu ma ci. waaye nañ dem ci ki nga xam ne ñun ñaar ñëpp. mooy suñu kilifa. te doy nañu ci lépp. muy sëñ Touba muy sëñ Touba. sëñ Fallou ñëw sëñ Cheikh. jox sëñ Tuubaa ne ko kii kat sama doom la mm-hmm. di doomi sëñ Mourou Moustapha nee na nee ma tuddal kooko waaye nag da nga fay nekk jox naa la jox naa la ci ndigal mm-hmm. sëñ Tuubaa ko boppam sëñ Cheikh Ahmadou Khadim ñëpp xam ne sëñ Tuubaa la ko tudde barakallah lay ndeysaan lay ndeysaan beneen bi mooy mm-hmm. sëñ Mourou Moustapha Falilou mi mi ab taawam fekk jamono 1920 génn jamono 2000. 2000 di borom wilaaya. Mhm. ku nekk xam ne ne. Mhm. sëñ Fallou sëñ Mourou Moussa la ko la ko tuddee. waaw moo ko yar moo ko jànkal moom la ko tuddee moo ko defal lépp. Mhm. ndax da sëñ Mourou Moussa daa sëñ Mourou Moussa Fallou sëñ Mourou daal wax naan waaye waaye man sëñ Mourou Moussa rek la laa xam waay. ndeysaan sëñ Fallou sëñ Fallou damaa jur rek. damaa jur waaye lépp lépp moom moom moom moom moo ko defal. ndeysaan digganteem ak Cheikh moom Lamine Baara. sëñ Fallou dafa bëggoon sëñ Baara. gis nga sëñ Baara. sëñ Fallou way na ko. sëñ Baara nee na sëñ Fallou wa maa yujaarika fil maydaani min ahadin wa maa yujaarika fil maydaani min ahadin min ahadin fil xilmi wal ilmi aw fil juudi wa nasabi laa ilaaha illa yow Sëriñ Baara sama rakk nga ñoo bokk bàyyi maa la mag waaw waaye ñetti lef yi may daan bu ko rabaxee may daan mooy avenue mooy avenue waaw ndeysaan boulevard ñoo ñetti boulevard ñoo ñetti yi mhm. maa la mag waaye xam naa ne kenn kenn kenn ëpp réew la ci wallaay ndeysaan xam-xam xam-xam lewet ak askan nasab wallaay ndeysaan ak juut. ak juut ak tabe. <laughs> ak tabe. <laughs> ah nee na ko ñeent yi sax ñeent la. ñeent ak xam-xam lewet amul koo ci àndal ci yow. waaw yow sëñ Baara yaa ci raw ñëpp. wallaay ndeysaan xam nga lii mooy relation bu rafet. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan digganteem ak Cheikh Mouhamadul Bachir. boo xoolee Alaaji Baara rek nii rek. Alaaji man maa dégg sama nopp ma may ma dégg Alaaji Mouhamad Lamine Baara. Mhm. mu wax ne. Mhm. sëñ Fallou. Mhm. 1928. Mhm. bi mu jugee Màkka. Mhm. ñu di ko ganale ci Ndindi. Mhm. ba fa suñ baara ñëwee. ci la ma ko jox ne ma yób ne ko yóbbaale sa doomam ko dëgg la. tuddee ko ko ba pare jox ko ko dëgg la ne ko na fàttali ko maa koy ziyaara bu baax a baax xam naa sax émission bii di ñëw. moom la war a fàttali ko Alxaaji Mamadou Lamine Baara ku boobu moom Alxaaji Mbagnick laa koy may insha ah, allahu xaritam sëriñam soppeem immeuble bii ñuy waxtaani sëñ Fallou Alxaaji Mamadou hmm. Lamine Baara lañ ko tuddee <laughs> baax di bu baax lool. Mm-hmm. Uh-huh. digganteem. Mm-hmm. ak Cheikh Mouhamadul Bachir borom Daarul Minan. Uh-huh. Mm-hmm. Serigne Bassirou mi may wax tudd sànq ba Touba Mérina. bi mu ganee àddina. Serigne Fallou. Serigne Bassirou dafa gane si. Sëñ Fallou. ndeysaan da ko gane si. Uh-huh. Sëñ Fallou ne Sëñ Bassirou. am naa fi tudd tànk. tudduma mm. bis sàngam la na mm-hmm. nga ko xaar ba mu ñëw mm-hmm. tudduma bi mu ñëwee mm-hmm. sëriñ Fallu jox ko ne ko kii mm. tudd ko tuddee ko sa bopp muy sëñ Basiru sëñ Basiru moo tudd sëñ Basiru mi moom sëñ Fallu mi tuddee ko boppam moo ko yar ndeysaan moo ko jàngal uh-huh. moo ko taxaw ndeysaan lépp lu nekk ci moom moo ko ci def moo ko def ci moom am na kër gu mag poroxaan ak sëñ Tuubaa Basiru jox uh-huh, uh-huh. buñ ta buñ ta jumaa Tuubaa Masaalik gi bi ñu ko taxawalee ba ba ba jumaa ji bi ñu ko inauguré ba mm. noppi avant ñu ko inauguré sëñ Basiru dafa ne ko. Mhm. sëñ Basiru kenn sëñ Basiru Mbàkke sa way jur. Mhm. maa la ci ëppale man sëñ Basiru. Mhm. ne ko am na ku ñuy wax Souleymane Xuma mu daan noonu ca jumaay Touba. wàcc na liggéey. masaalik damaa bëgg nga yebal fa doom ji ñuy wax Moustapha Xuma mu fay noot di ko. baax mu di fa noot de waaw <laughs> ndeysaan. sëñ Basiru moom sëñ Fallu moo fa indi Moustapha Xuma. Moustapha Xuma moom ndeysaan ci ci ci ci ci moom la jaare kon. ndeysaan jaari sëñ Muntaxa. baarakallah ku relation bu rafet kon. loolu relation la bu rafet la bu rafet moom Mm-hmm. nee na bi mu nekk jamono. Mm-hmm. dana ku laal sëñ Fallu mën nga laal. Mm-hmm. sëñ Fallu mooy sama lépp. bu ma waree wàcc liggéeyam sëñ Fallu foofu sëñ Blaat. na ko wëral Sénégal gépp Kajoor Bawol Siin Saalum wëral fépp. ba mu ñëwee def ab diir. ci la sëñ Fallu wàcc liggéey mu xamoon ne kon xam moo xam ne kon moo ko waroon wër moo tax mu doon wërloo Sénégal. dëgg la sëñ Saliou rek. moom kay ñoom ñëpp rek ndeysaan ndax kenn ku ci nekk daanaka boo xoolee tuddee na la ba ci yeneen boo xoolee tuddee na Mamor Diarra borom saam doom ndeysaan mi sëñ Massamba Diop Sam gis nga tuddee na ko doom waaw Mamor Diarra ndeysaan mi ngoog ñaari ñaari Mamor ndeysaan tuddee na ko ñaari doom ndeysaan ñaari doom tuddee Serigne Fantama di Mbacke ca Kankang Serigne Fantama di ndeysaan Serigne Ahmed Badawi Badawi ca ca Medina Serigne Ahmed Rafahi Rafahi Rafahi ndeysaan dara dundal jamono ndeysaan ndeysaan nga xam ne relation am yëmutoon ci njabootu sëñ Touba gi waaw waaye umma islami bi yëpp la amee loon la amaloon génn génn ba bitim réew ndeysaan bitim réew sëñ Fallou ñëpp la amaloon relation. baarakallah am na solo am na solo xam naa li ñu dese ci waxtu jeex na waaye xam naa ni suñu laaj buñ mujj mooy diggam ak jumaa ji mhm. te foofu la ñuy tënkee rek xam naa liggéey bi incha allah jërëjëf Cheikh Mouhamed Bara mooy yi nga xam ne defal na ko sëñ Tuubaa waaw yëf sëñ Tuubaa nag miire armeel yi indi courant yi indi ndox mi bi ci jiitu <laughs> bi ci jiitu <laughs> mooy sëñ Tuubaa dafa amoon mébét te màkkatal mukarrama te màkkatal mukarrama ndeysaan waaye yàlla dogalu ko 1928 mhm. ci la sëñ Fallu ajali màkk sëñ Tuubaa ndeysaan ànd ak maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam borom Daaru Salaam borom minal jannati ilal jannati ndeysaan ànd ak sëriñ Mawlaaya Buso ñu gën ko xam sëriñ Mawlaaya Buso waaye turam dëgg mooy sëriñ Mawlaaya Buso Mawlaaya waaw mooy turam wolof moo mën a yàq waaw ñooñu wax Mawlaaya rek sëriñ Tàkko Mbàkke <laughs> alaaji sëñ Tàkko ànd ak sëriñ Mandiaye Diop mm-hmm. ànd ak sëriñ Ibrahima Dia Alaaji Ibrahima Dia waaw ñii la àndal dem Màkkatal Mukarrama 1928 mm, mm, mm. ndeysaan ñibbisi moom sëñ Fallou aj màkk kon lii rek doy na sëkk ndax sëñ Tuubaa bëgg aj màkk te defu ko ci saa waaye ku ko defal kay mënuñu koo fay alaay ndeysaan kenn mënu koo fay waaye màggal Tuubaa gii nga xam ci la sëñ Tuubaa amee lu kenn amul moos wala ñu mayee lépp ci ñu dogee ci jé jaam Ah, sëñ Abdourahmane Mbacke. Hmm. moom sëñ Abdoul Khoudous. Hmm. moom borom daaru yàlla na yàlla. wallaay ndeysaan yàlla yàlla yokk ko leer. te bi way sëñ Tuubaa. jabar sàq ma xam ne xubbul xadiimi. Hmm. ala suudaani muftaridun. is na bëgg sëñ Tuubaa ci ñëpp la war. waaye nit ku ñuul moom. bu nit ku ñuul bu ñu dogee ay jëngam. jëngi jàmm bu ñu ko dogee sëñ Tuubaa c'est grâce à sëñ Tuubaa. tukki boobu nag. dañ ko sëñ Tuubaa mi ngi ko njëkk a woote 1920. 21. waaye ba 23 ba 24 ba ba 46. Mm. fu ko waay fu waay fu waay nekk fa nga koy defee. Mm. la sëñ Fallou woote. Mm-hmm. biir Touba ñu koy màggee. 47 Touba jumaa ji. Mm. sëñ Fallou moo ko sëñ Modou Sa moo ko tabax. ba mu jug ba fenêtre yi commencé génn. Mm-hmm. sëñ Fallou ko àggale. ba 1900 la 7 mars. Mm-hmm. le 7 juin. 1963 la ko inauguré. ndeysaan def ci 677 million 677 millions ca jamono jooja. 448 mille. 377 millions. 448 mille. ndeysaan. 335 mm. francs la ci def. laa ilaaha illallaah te moom mi ko def moom mi def moom mi def lii laa wax de. Mm. ci baraag lay fanaan ci lay fanaan. <laughs> xam ne benn benn benn benn benn almet. mën mm. naa taal këram. laa ilaaha illallaah lu jege loolu mooy yàlla jaral na ko. mooy moo tax wax naa ko keroog asale maa doon waxtaan ki dama ne <laughs> képp ku yab murid yi uh-huh. ci yàlla ak yonent bi. Ah. da ngaa naa fiq wala nga ñeme yàlla. wallaay ndeysaan ay murid dara ñëw yàlla ak yonent bi. wallaay ndeysaan wallaay def lu war milliard ci néegub yàlla. ci néegub yàlla. sa kër ngay xam 677 millions. 400 ku francs. ko def ci <laughs> néegub yàlla. nga dëkk ci ci baraak. ci baraak loolu mooy yàlla jaral na la loolu mooy la. mooy la la tubaab boo xoon si yëpp daal. waaw. sa sa baay di xaw ma lu ko yàlla am ji defal waaye jaral na ko waaye doomi sëñ Tuubaa yi yàlla jaral na yàlla jaral na <laughs> leen de kon loolu mooy liggéey bi mu liggéeyal sëñ Tuubaa nga xam ne liggéey bi mu liggéeyal sëñ oh, Tuubaa waaw ëpp na loolu ëpp na loolu waaye waxtu wee ñu ko mayu waxtu wee ñu ko mayu sëñ Baara so kontaan nañ baax baax ndax wax dafa gàtt Euh, saa yi liñ bëgg wax xaju fi waaye na ci barkeelu bi dëgg la dëgg la noonu a dëgg la waaye lii rek doy na mhm. euh, mhm. mhm. xam ne bu yàlla dogaloon 677 millions daje ci a dëgg la de dëgg la de jox ko xam ne weer wu dee lu muy indi dëgg la de defal ko yàlla ci loo xam ne weer wu dee séentu wuñ lu ñu dëgg la mas naa dégg Rafa ah. sëñ Rafa sëñ Amadou Rafa yi di wax ci benn cérémonie mm-hmm. Kazu Rajab mm-hmm. ne sëñ Fallou li mu fi bàyyi mm-hmm. maanaam kayee baa ngi fi miraas bi xaw ma ñun ñëpp bi xoolee kenn ku ci nekk dix-huit mille francs dix-huit dëgg nga nga nga am bu ñu calculé xaalis beeg bien yi mu fi bàyyi yëpp bu ñu ko calculé kenn ku ci nekk dix-huit mille francs nga am kon ku liggéeyal yàlla so six cent soixante-dix-sept millions bàyyi fi. alal bàyyi fi alal ju mën a doon jamono jooja. ca jamono jamono jooja waaw nga xam ne fi mu nekk nii rek 677 waaw. maa ko ci néegub mhm. la ko yow ngay nit. ñu néew la ko yàlla jaral dëgg la de. te moo ne. Mhm. kii nga xam ne moo liggéey liggéey bii ci 677 millions. Mhm. buñ fàtte ne. juróomi dërëmi murid yi. ak seen ñaar fukki dërëm yi. moo dajale 677 millions. ci jooja ndax booba moom yëre entreprise bu koy juróom lu yor lu dul ay tool. Mm-hmm. su nawet bi ñëwee mu dem suul lim am. Mm-hmm. toog xaar yàlla. Mm-hmm. su nawet bi sottee mu jaay lam ca am. njabootu Sëñ Tuubaa gi muy taalu bi yeeg magi murit yi. ñoom it def ni moom. dajale lañ am di jox ko mu booleeg lim am def ci jumaa ji. su jeexee. ñu toog xaar yàlla wuti dundub déwén. dëgg la su déwénee it encore ñu wutiwaat yeneen jiwu defar. xaar bu génnee rek ñu sottiwaat nga xam ne. amul financement bu jógee bitim réew. amul entreprise bu koy jural leneen. Mm-hmm, mm-hmm. amul amul amul amul. xaaru dara ci zaahir. xaaru dara ci zaahir. moom léppam. Mm-hmm. ci dooley boppam la ko yaakaari ak ndimbalul yàlla. ak ñàkku taalibe yi. bañ na ci xam nga dégg ngeen ne ñu moom daaw denc banque. déedéet moom ab bërigo la amoon. dëgg la dëgg la luñ ko jox ngir Sëñ Tuubaa foofa la koy def. su génne jotee mu génne def ci. dëgg la su jeexee mu toog xaaraat yàlla. bu bàyyi ci moom Sëñ Fallu. mënul téeméeri wilaaya geeg gis nga daraja jeeg gis nga ndimbal geeg te defal yàlla 677 millions ba li fi bàyyi 400 et quelques mille la fi bàyyi baarakallah sëñ Modou Fall li doofu ci nab gi lépp daa xajandoowul ci cin li mhm, xanaa mhm. dañ doon soo li suur gor yi mhm. dañ doon sóor li suur gor yi ba beneen jataay rek incha allahu taala mhm. kii ñu doon waxtaane it waxtaane ko am na njëriñ mhm. ndax yàlla taas ñu ci barkeem ndax kat moom la ñuy wax borom na am mu am mooy ki nga xam ne dafa juboo woon ak boromam tabaraka wa taala da da koo jege am na doomi sëñ Fallu jigéen joo xam ne bi mu nekkee ndaw doomi sëñ daan jógee kër wéjuram bu jigéen di ñëw kër sëñ Fallu sëñ Fallu ko waaye demal demal toog waaye maanaam di jaabante rek di dem ak dikk mm-hmm. sëñ Fallou yittee xaw na koo jàpp mm-hmm. mu ne sëñ Fallou bu ñëwee sëñ Fallou delloo ko ne ko demal damaa xaw a jàpp mm-hmm. léegi mu dem ak dikk. Mhm. yoonu mujj yi suñu fàllu ko yow xanaa doo dégg. xanaa doo dégg. xanaa doo dégg jooju da ko topp. ca la ñàkkee nopp <laughs> ca la ñàkkee dégg wilaay gi moo ko gi de du moom. waaw wilaay moo ko jege. suñ borom yàllaa ko may loolu. yàllaa ko may loolu yàllaa ko may loolu mhm. wilaay gi jege ko ba mhm. lu mu wax rek mu am. kon nag ci barkeem na amam mu am jooju yi. ci barkeem njabootam gii. nga xam ne. sëñ Abu Baraka mii nekk wax bi ñuy gas sooroolu jumaa ji ndox mu bari ma moom la suñ fàllu woo mu boo ma neexalee téye ma téye ndox mi tey te sëñ Abul Baraka sëñ Mbàkke Buso la ko tuddee mhm. nijaayam mhm. kon ñi ngi ñaan ci barke barke yooyu mhm. yàlla na yàlla barkeel suñu dund waaye barkeel it suñu liggéey kër gi nga xam ne fi dañ koy waxtaanee it mhm. yàlla na yàlla barkeel ko ci barke yooyu insha allahu taala ñu am ci lu kawe njortu sëñ Modou Fall ñoo ngi lay sant bu baax a baax te di gërëm ci déplacement bi nga xam ne def nga ko bàyyi sa yitte wax dëgg yàlla waaye jaaree ko Seexil Haaj Mouhamadul Fadal mhm. mbokk lii moo doonoon seen émission keppaaru mag ñi mhm. ngeen doon ci ànd ak seen mbokk sëñ Baara Mbàkke muy am yi ngeen di ko jàpp ci TNT canal bi 108. Mhm. Euh, lu ci jub yàlla la. Mhm. mbokk yi lu ci dëng matadi doomu aadama la. Mhm. Mouhamed moom moom moo nekkoon ci wàllu xarala gi. jàppandal kàddu yi ak image bi ba ngeen man ñoo. Euh, ba ngeen mën ñoo seetaan baarakallah yàlla na yàlla dimbali ko te dimbali jullit yëpp lu ci jub yàlla la lu ci dëng matari doomu aadama la in uridu ila al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi ila billah wa aleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh Ahmad Souleymane bi sarfi almasiyaat kaymaa taqooda simaamin lirrasiyaat adan li tazdaada qalbi uzna bahjatihaa wa wajahat li hadaayaa bilmabaraat amsat tutayyibu nafsi kay abiilu lahaa waawalat mayla qalbi للهديات وخاطبتني بما يدعو لغذبتها وأزغرت صدق وعدي بالرقيبات تورا تديني وتوليني دوائسها وتارة ليتهدي بالبشارات لكن علمت وإلمي سوف ينفعني بأن ساعة ميل في المقالات كانت موائد قرقاب لا مثلا وما موائدها خير القيانات ليس تريد وإلا قد أرت كدرا من بعدي وتد